dëkk ba la jógee ñëw doon jàng wàllum vulcanisateur. di defar ay pneu ki yëf. Mhm. li ko setal nag maa ngi vidéo yi léegi xam naa ñi jàpp booy beeg waa Rëbës day gën a sax jàllale nañ ko tey jii jii jii buñ ma woon ma yóbbu leen vidéo yi wane ni booy bi bi yëf yi di am ma ngay liggéey maanaam caméra surveillance yi mi ngi ko doon jël ba bi muy julli ba bi muy wàcc bay wàcc ba bi muy wàcc di ñibbi. ñu déglu ki nga xam ni mooy patron am après dellusiwaat. d'accord am benn problème lañ fekk baasam jàpp ko. mu julli timis ba pare di ñibbi wagaam gars yi jàpp ko vidéo yëpp ñu ah, wan leen ko mais boobu ba tey vendredi ba tey mu ngi fee gendarme wagaam nangu ñu ko bàyyi te bi dëkk ba la jógee soogoon lu jógee ñëw dégg dégg instant yi nii maa ngi jaabante tribunal ak yooyu ko woo sama commune gendarme ko woo ñaar la affaire manifestation yi mooy lool te yàlla xam na ne su doon dafa manifester man du ma si sonn mais xam naa booy mais booy bi nekkul si yooyu booy bu maanu billaay booy bu maanu yuusu moom foo ko fekk jaamu liir jàng xasida sëñ Tuubaa yeeg yooyu loolu tey billaay manifesté wul te man moom mun naa ko waat yàlla manifesté wul gars yi jàpp ko depuis vendredi bi dem nañ ci gendarmerie Wakaam wan leen ko nii ne leen mu ngi nii booy bi da doon julli sa jour manifestation bi manifesté wul mu ngi nii fii la nekkoon di julli nii léegi nii la wàcc dem di jëndi reer. si deuxième vidéo bi moom moo génn noonu di dox sax di dem noonu moom mooy dox noonu si deuxième vidéo bi nii. moom mooy dox noonu sol maye bu maye bu ki bi am lu xonq nii ci catu loxo yi ci jouru manifestation vendredi yi passé booy bi dafa jóge Sokone ñëw di liggéey ci fii quoi organisateur moom jour manifeste manifesté wul deful dara dafa nekkoon ci place bi bi ñuy di ni timis a ngi nii fekk mu ngi julli timis foofu def lépp ba pare tëj place bi dem jënd di reer bi muy ñibbisi gars yi jàpp ko yóbbu ko gendarmerie wakaam jàllale ko te booy xamul fi dara ñu ngi fi topp si de si sonn te manifesté wul deful dara mais. mi ngi noonu ma jigéen kooku moom victime la ci li xew. vidéo yaa ngi nii ñoom ñu yónnee ma ko ci seen caméra de surveillance yi fi muy liggéeyee ci pendant bi yëf di am ma nga ca organisateur ba bi mu demee nag ba yëf kii ba ñu tëj ci lay tàggoo bay dem. di ñibbi di jëndaale reer ci lañ ñu ko euh, kappuus jàpp léegi nag li ma tax ma lëkkale kook démb dama di gis benn booy bu génn rëbës mm-hmm. euh, mu nettali nee na dafa am magam bu ko yónnee xaalis boo xam ni pour yaayam ji feebar la woon mu dem di ko retiré ji far dajeeg nervi yi ñu jàpp ko duma ko jël xaalis bi ak portable am daal di koy yanu yóbbul police yi boobu nervi yi du ñoroon jàpp di yóbbul police yi léegi nee na bi ñu jógee ci loolu nag tëdd na rëbës ñaari weer ak tànkam buy metti démb lañ ko mujj libéré ndeysaan te amul benn mbokk dakaar mujj na nag bokk ci ñi ñu ñi ñu bàyyi démb kon mu bari daal ñu bari ay victimes lañ ci liy xew kii ci la bokk bu fekkee ni ñi ñuy dégg euh, bu ñu soxlaa vidéo yëpp ñu yónnee leen ko mhm. ndax ay mbokkam def nañ lu nekk pour ñu gëm leen ni booy bii bokk ci woon waaye daal jël nañ ko yóbbu waaw euh, sooy bu li ngay expliqué tout maa ngi koy nettali sànq rek alaaji bi ñuy ñëw Euh, ma ne ko Diop Taïf laa dégg muy vidéo waa ji di expliquer kaawam nga xam ne yaayam moo feebaroon nekkoon lu daan teg yaa magam waroon ko yónnee xaalis pour mu dem récupérer ko ci lañ ko jot a jàppee ba démb lay soog génn mu nekk mm-hmm. xale bu ndaw mm-hmm. ndeysaan mu nekk lu metti sooy bu mm-hmm. certes bàyyi nañu euh, ay ñi nga xamante ne nii dañ leen teewoon ci kaso bi lu yàgg ñu ne ñenn ñi dañ doon manifester ñenn ñi mooy ñi nga xamante ne nii ñoom la ñuy woowee ñi siiw ñi ñuy wax ay détenus politiques événement semaine passée ak euh, tey jii nii. Mhm. ñooñu moom seeni mbir man dégguma benn yoon ñu ñu ñu wax si. parce que képp ku ci nekk it da doon manifester ngir sa ak oh. ak sa démocratie réew nu mu nuñ ko gën a ñoŋalee ba mu ñoŋ. Oh. xam nga ni kii nii di liggéey nii preuve bu ñu waa ji bu mu demee montre ko waa ñiy gérer mbir yi rek. Mhm. moment boobu lañ ko waroon a. vraiment li ñuy wax nag naan ay moom du yam ci boppu borom. parfois mhm. gars yi dafa mel ni du ñu ràññee ñi manifester ak ñu dul ma ñu dul manifester am na ñoo xamante ne nii du ñu manifester de dégg benn waay muy wax ne bi ñu bi ñu bi ñu koy interpellé. Mhm. bracelet Pastef rek la takk te dena dafa wàccoon. déet waay mais après dañ ko mujjee bàyyi sax moom moomu noonu. ok aussi tamit nekkul loo xamante ne nii day day day loolu lañ leen fa tegee maintien de l'ordre certes. Mhm. nit yi ñu ngi manifester jéem a la arrangé wu fexe duñ ko arrêté. wala ngeen jéem a waxtaan discuter député ba yii nii yi ni mel nii dootul amati mais yaa ngi ne da ngay da ngay bàyyi mais ñi ñuy dugal nag ñooñu ñoom fan la ñuy régler seen i problème commencé bàyyi ñëpp rek te xam ne képp ku ci nekk intention bu bon taxuloo woon a jóg mm. peut-être danga doon xeex sa ak ak sa yelleef d'accord <coughs> waaw affaire yi de mm. moo lay wan ne la mm. euh, jàpp gi moom xoolatuñu woon ku ci bokk ak ku ci bokkut na ngay ndaw rek ñu ramassé la rek ndaw ñëpp Sonko lañ. wallaahi oh daal la mbir mi eh, di nuru. pour defit bilan maanaam daal boo nekkee ndaw rek ñu jàpp la. maanaam ñi ñuy xaw a jàpp sax léegi ci manifestation yi sax bàyyi leen mooy ñu xaw a nekk paa. ñu ne kii paa la xam naa du kii. maanaam hmm. dañ doon ramasse rek quoi maanaam ramasse rek ay wana oh waaw. loolu nag baaxul te jamono jiñ toll nii comme que gis nga démb. dañu war a mel gis nañ démb. Uh-huh. man gis naa benn waaye benn kii bind ne xaw ma libéré gum nañ plus de. bari na de. defe naa ba am na gis naa ko bind ne xaw ma 501 personnes la. waxu xaw ma nag. waaw bari nañ de wala du ko bind rek quoi dafa bind daal ne libéré gum nañ actuellement. mais Ami Dia defe naa de bàyyi nañ ko. waaw. waaw léegi boo gisee loolu. waaaa kon kañ léegi commissariat yi ñoom it. Uh-huh. ñoom dañoo war a bañ a xam nga boobu jàllale nañ ko sax. waaw jàllale boobu. man nga rëbës waruñoo jàllaleeti. parce que xam nañ ni yëf yi léegi yëf yi kii na boo téewee ay nit après nga libéré bu fekkente ni bi jàppoon nga ni man day manifester téye nga ko ba manifester wul. léegi manifestation doo ko bàyyi mu dem dañ leen bàyyi ñu daal parce que xam nga lii nga xam ni vague de ni ñuy libéré nit ñi nii sax. loolu dafa doy waar quoi cim réew xoolal rek démb bu may xool sama yaram day daw. am mbooloo nga gis booy yi nit ñi génne ay xale yu ndaw. ñoo xamante ni bi nga téye leen pendant des mois. waaw xam nga. la doon def sooy. xale bu tuuti. ay xale yu ndaw est-ce que amagum na sax vingt ans. matu ko xale bu ndaw la papa ji taxaw nii ñuy <coughs> expliqué ñu ni seconde hmm. la doon def daaw lañ ko jàppoon perte na benn année bu nga xam ne waroon waaw xoolal loolu nga jàpp leen dugal leen ci kii uh-huh. te puis yow li nga doon wër après uh-huh. amoo ko waaw parce que li nga doon wër mooy ragal loo leen booy tey lañ gën a booy dañuy génn focus dañuy génn sax gën a gëm li ñu. le combat continue le combat continue parce que loolu yëpp li koy indi mooy. yow yaay def booy bi patriote parce que xam nga booy bi day jàpp ni moom day xeex lu dul yoon. gis ni jàpp nga ay nit ñoo xam moom muy xeex. yow jàpp nga ay nit ñoo xam sax da nga leen a jàpp ñoom dañuy gis ni lii nga leen jàppee tamit du yoon. Ah. dañ ñaan bon ñun kon kañ lii. dañ koo war a gën a xeex. waaw comprendre moo tax bu ñu génnee rek dañ naan focus. Uh-huh. anawaa donc euh, actuellement daal comme que ñu ngi jëm ci apaisement. Hmm. defe naa ni ñi nga xamante ni bii jàppoon nañ leen ci manifestation yi passé yëpp war nañ leen a bàyyi ñu ñibbi si seen i kër. mais moom nee na bi bu bi mu demee pour euh, ñaan njëkk daal dañ ñu leen affaire manifestation dafa garaaw kuñ ci jàpp say mbir day kii. affaire manifestation dafa ñooñu nañu xam ni tamit affaire bi nag xam nga garaaw woon na. Hmm. waaye garaaw gi léegi ñu na. Hmm. waaw te booy yu bari kat lañ leen jàppee woon kat moom la PDS dëkkee woon doon wax fan yii kon kay ci lañ xam ne affaire garaawatul ñoom nee nañu dëkk na résistance xeex la ñuy def pour élection yi am suñ seen mbir bokk ku leen xeexal moo tax boobu seen bos garaawut waaye jëmmi wax ji lañ jàppee booy waaw jëmmi wax ji waaye xam nga dañ naan kii di ko wax mën na koo jëf waaye kee mënta jëf PDS <laughs> ji nag yoon day yemale nag dañ naan loolu noonu lañ noonu la ñuy gisee mbir yi laa wax quoi. waaw kii mën naa yëngal waaye kii moom day wax rek. Hmm. mais jëmmi wax la ñuy wax. waaw nañu daal. daanaka ci gënoon a yàgg ay Cheikh Oumar Diagne ak. Hmm. mais Cheikh mooy Cheikh ko de. ah Cheikh après nee nañu daal des ay mbiram des na tuuti. des na waaw dégg naa ko ci vidéo de ñu nañ ko bàyyi mu génn nee nañ ma daa am yu rek la yu des. Karim bàyyi nañ ko. waaw loolu laa dégg Karim bàyyi nañ ko Fadilou Keita ñoom Pape Abdoulaye Touré Yarga Sy ak Oustaz Assane de Cheikh Cheikh Oumar Diagne lu ñuy xaar ñu ne non dama dégg naa ci vidéo daal ñu ni na ko Macky Sall bàyyi mu dem yoonam nee nañ xam ma mbiram am na lu ci des lu ñuy réglé amul dara lu ci des nañ ko bàyyi kookoo bëgg la jël mbir mi eh, est-ce que bàyyi nañ ko information yi ma jot moom wax dëgg yàlla non ñoom dañoo affiché seen i tur rek Ah, hmm. waaw euh, Pape Abdoulaye Touré daal gis naa ko dégg naa ko mu wax. waaw ak ñoom ak ak nooru euh, parcelle bi. waaw xam naa léegi moom rek allah. waaw léegi Cheikh Omar dañ ko war